يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي لنا بنظرة انال بها وطري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موكيني باي خلتي سن لابل مكتوم برو سن موكوم ام شيخ احمد التيجاني جوب فكوك دومون ام شيخ محمد مدير لو. جناو بنسكي سنو بتيوم تلالكو كسنو لوخو ziyaare ko sama sang sayyidi wa mawlaaya xabibi cheikhi asayid cheikh mohammadin al mustapha si al murshid al am xafidahu llahu wa ayadahu wa raahu mbokk yi buñ waxee le 10 juin xel yëpp dinaam ci ku mu dem mbokk yi siècle bu nekk yàlla dina am ku mu yebal mu ñëw ngir def tajdiidul risaala beesalaat gën a ñoŋal risaala yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kookee nag di sangu jamono mawlaaya sayidi cheikh mohammadin il moustapha si al murshidul am mbokk yi le 10 juin bii nag ñu bëggoon ñëw ak yéen ci xasida bu am solo bi nga xam ne oustaz Hady Niass moo ko def ci sangub jamono muy sang boo xam ne yitteem moy defar nit ba xelam ak xalaatam ak jikkoom dëppoog jikko wa asamaan fa tabarakallah ustad Hadi nyas nak maga tambale qasida bi walil Mustafa fi qalbi jili makaanatun lahaa rifaatun tuddaa bi acla almakaarimi mu ne sang bu tedd bii di Cheikh Seydi Mouhamadin am na daraja bu kawe ci diggu xolu siècle bi nuy dund ak yëkkatiku la boo xam ne moo gën a kawe ci teraanga yi fi qalbi jili makaanatun xanaa kon muy luy firndeel ne sunu borom siècle bu nekk dina am ku mu yebal ngir mu ñëw def tajdiidu risaala Oustaz Hady Niass ma ngay continuer xasida bi di wax naan sang bi di Sëriñ Mustapha إذا قال جاء اللفظ شمسا مضيئة وكانت حديث الرشد محيي الجماجم mu muni sëriñ Moustapha su waxee kàddoom di jant buy leeral waxam di waxu njub buy dundal kaang yi te mooy ñi seen xel deewoon ñi nga xam ne seen xel ak seen xol daawul xalaat bu sëriñ Moustapha waxee ñu gindeeku ida qaala jaa al lafzu shamsan mudiatan su àddoo nga yëg ne waxam jant la boo xam ne dafay leeral nit ku xamuloon fu muy teg tànkam ba mu xam fan lay jaar ba jubóog boroomam ki nga xam ne xelam dafa deewoon xelam nekkuloon di dund te mu bëgg xelam dund bu sëriñ Moustapha waxee bu dégloo waxam xelam foog mu dund fa tabaarakallaahu ndax moom muhyil jamaajimi ne na ko yaay dundal kàng yi cerveau bu ci dee rek boo àddoo cerveau am daal di dundaat te loolu dëgg ju wér la képp ku am xel tey xalaat xam ne baat boobu mu wax moom Oustaz Hady Niass dëgg la fa tabaarakallaahu Oustaz Hady ma ngay continuer qasida bi ba tey di wax naan hani an bi man jaau li kasbil manaafici وفي كسبها محق لكل الجرائم مانغي ندوكل نيغا خامن خلو نانيو ام خل تاي خالات با نيو غير فاغو نجاري ني نيك في ندخ وفي كسبها محق لكل الجرائم ندخ نيك نا سي انسيغمانو سيرن مصطفى بو نيو كو بايي خل كريم يي ني ديغ سي ريو مي يب من نا parce que enseignement wam bi nga xam ne moom lay dégager nga di ko jël boo koy dégg sa yitte lenn rekk lay doon mooy naka ngay def ba juboo ak sa borom te nit nag bu fekkee ne yitteem yépp mooy naka lay def ba juboo ak boromam naka lay def ba bu ko yàlla xooli bég ci moom dina am lu mu jomb def ba ñu naan diw moo def nangam moo tax mu Moussa Hadi mu ne maa ngi ndokkale ki nga xam ne dafa ñëw ngir fàggu si yiw bi nga xam ne moo nekk ci enseignement wu Serigne Moustapha ndax bu nu ko bàyyi xel kirim mën naa ñàkk ci sunum réew. waaye nag maal asafu shadid ustaad Hadi ma ngay continuer qasidaam ba tey di wax naan. هنا منهل المسترشدين ومنبع لألفاظ الرشد لا ترى في المعاجم mu ne fii mooy naanuwaayu way sàkku njub yi te mooy muy mustarshidina beneen ba ca topp mooy mooy balluwaayu baatu yiw yi nga xam ne deesu ko gis mukk ci dictionnaire xaaral ma dem wëri ko ci dictionnaire déedéet balluwaay la boo xam ne nit ki bu ca sóoboo dina gis njub bu mësta gis ndax enseignement ba nga xam ne moom lay dundee loolu moo tax boo àddoo ñu xam ne fa ngay jëlee du fii bo jëfee ñi xamné fa ngay jëlé du fi moo tax nag ku la raw rek amna fu mu la rawé xana moy la abu tayyib al mutanabbi don woyee kafur nan ko fa in tafuqi al anama wa anta minhum fa inna al misk bandu dam al ghazali ne na ko bu fekki ni da nga gëna kawe say mas jaxaluñu da fam fu nu jaar ak yow fa nu jaar ak deretu kéwél ba mu xëy di parfum misk nga xam ni ku ko laal sa morom ne la sa parfum neex na fa la nu jaar ak yow moo tax nag mu ne fii mooy balluwaayu mooy naanuwaayu ñi nga xam ne njub rek leen yitteel mooy balluwaayu baatu yiw yi nga xam ne itam de su ko gis mukk ci dictionnaire ndax du xam-xam yi ñuy jàng ci téere waaye ilmun la duni la fa tabaraka allahu ustaz hadi ma ngay continuer ci qasidam di wax ba tey naan أيا أحمد التيجاني أبشر فقد أتت ثمارك تؤتي أكلها في العظائم الله أكبر نانوك إيو سيد شيخ أحمد التيجاني سي المكتوم بيغل بéggal ndax sa njëmbat la nga jëmbatoon màgg na meññ na ñor na ba tey ñëpp a ngi ciy jariñoo kon béggal yow ahmad at tijani ndax kii tey képp ku ko xool sa xel dem ci yow muy Cheikh Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy kon nag bégal yow Ahmada Tijaani ndax kat sa njëmbët lii meññantam nit ñépp a ngi ci jariñoo moo xam kuy jullit moo xam ku dul jullit xam nga waxoon na la sànq huna manhalul mustarshidina wa manbaun li alfaazi di la tura fi lmaajimi soog a indi ayaa ahmada tijaani abshir faqad atat thimaaruka tu'ti uklaha fi ladaa'imi teg ca nag di wax naan wa jaamicatun fi shahri jamcin yuniiruha huda malikin la tushtara bidarahimi mu ne wa jaamiatun université la boo xam ne mi ngi am ci shahru ramadan ci weeru koor université boobu nag la koy leeral moy huda malikin njubu cheikh seydil haaji malik mi nga xamne la laa tushtara bi dorahimi deesul nekkul lu nuy jënd ak deureum te moy université du ramadan xam-xam ba fay balle leer ga fay wàcce khalis mënu koo jënd motax njub rek fa tabarakallahu ustaad haadi ma ngay kontine qasida bi ba tey di wax naan fa ahlan bi man yuxyi li walillahi darrul Moustapha fil maa ngi ndokkeel ak félicité di dalal ki nga xam ne mi ngi dundal di yar ay nit di dundal seeni xel ngir dundal jikko yu baax yi ndax nit boo ko jàngalee defar ko mu am jikko ju baax te am na ci ñoo xam ne seen yitte loolu rekk la moo tax mu ne kon képp koo xam ne sa yitte mooy yittewoo doomu aadama defar jikkoom ba mu juboo ak boroomam maa ngi lay ndokkeel متكتن ولله ضر المصطفى في المواسم الله أكبر منكيم تان يلنا يلا كم باخوك سري المصطفى كبير مبولوي الله أكبر سيزون ييغا خامنة دانيو سخل نجوب تخاو خم خم تخاو لير تخاو تخوا مصطفى المصطفى بير سيزون يوي يمنا تي يلا أستاذ هادي مانجي جيخالي قصدام تي جلي كيننتبي صلى الله عليه وسلم صلاة wa taslimun maan min ilahina ala almustafa almuxtaari min ali haashimin sallallahu alayhi wa sallam jàmm ak xéewal mboole seen bu jóge ci sunu borom yàlla na ko dotte wàcce ci yonentam bii di Moustapha sallallahu alayhi wa sallam na wàcc ci ki nga xam ne yàllaa ko tànnal boppam mu bokk ci ali hashim di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mo nekkoon qasida bi nga xam ne oustaz Hady Niass mu ko bind ci mawlaaya sayid cheikh mohammadin al moustapha si al murshidul am xafizahu llah wa ayadahu wa raahu seen mbokku mam cheikh ahmada tijani diop ñëwoon ngir rek dundale ko bésu tey bii di 10 juin fa tabarakallahu ñu ñaanal ci yàlla sunu kilifa ñaan bur allah subhanahu wa taala sàmmal ko boppam aaral ko boppam làqal ko boppam fu loxo yàqkat yeggul aar ko ni mu aaree asamaan sàmmal ko njabootam ñu ñaan ñu nitam bur allah subhaanahu wa sunu pas-pas ñu dénk ko ko moom yàlla mu téel ñu ko ci sunu ginnaaw kilifa ñu ànd ak moom ilaa yawmi diin ànd ak moom ñaan sunu boroom ëllëg yawmal qiyaama jotaayu rabbun tabaaraka ya yàlla bu nu ko wuute incha allah te lay tax duñu ko wuute mooy yàlla téel nu sunu pas-pas ñu ànd ak moom ilaa yawmi diin yàlla dimbali nu may nu moom sunu boroom ñu bañ a wuute ak ndigalu sunu kilifa mawlaaya sayidi cheikh muhammadin al mustapha si al murshid al am xafizahu llah wa ayadahu wa raahu seen mbokk la woon maam cheikh ahmada tijani diop ci seen label maktum prod ñi di leen wax rek ngeen continuer di ànd ak ñun ci maktum prod inchaa allahu taala Maktoum Prod téléphone 77 417 70 78 ñu di leen wax mbokk yi ngeen continuer di abone ci chaîne bi di Maktoum Prod mbokk yi jéem a baax ba baax moo gën jéem a bon ba bon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf فلك هاجمتهم بنبال الألف والهبب